أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صد اللساني نور جناني سافر أماني وسد برايسان ستظهر لقط مهر فلتك جور لمن يراي ونخش إيالي من الضلال وبالألاء خالص راي سنه تاب كل الكتاب وقل ما تاب أسراي يا خير رب خير مرب تاب طيب. تخذ بهات الرجاي صلي وسلم على المتاب بكل يحسن بالمتايب اللهم صل على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ak seeni gëstu ci lislaam ak ak sañtug baax Cheikh Ibrahima moom ni mu ko daan taxawale mooy ni ko sëñ Tuubaa santaaneelu xamun yoa si mawlida nabi yo naa babul huda fala yo subu xada kontrém waaci mi loo xam kooku lu man an faaxe fi mawlidul musarrafi maalum bi xëyri sarfi wala bi xadri dirhami fa in kaman alal yow ma unoy ni wa sabar wa yow ma badri wa nasar xerawam fahimi daa waxam ne ku ko def ku ne rek mel nga ne ku teewe badal ku ci dundulee sa àll ku ci joxe dërëm wala suukar wala ndawal di sukkarin aw la mel nga ne ko teewee badar ko ko jàngatu liccum ndox naa ne yu nawiru xalbu sarab min sarikal maabil mu jàpp wala xalbu yu yu doonaa waan saxaan yeex tamit te dañ ñu naan gàmmu biddaa la dama leen kon muy bidaa boo xam ne biddaa bu bu yàlla tàmbalee biddaa bu ab tàmbale la tudd kon waaye du biddaa buy firi biddaa ibtidaa lay doon kon ndax loo xam ne yàlla da koy def sant yonente yëpp ñi di ko def malaaka yi di ko def ku koy def ku ne mooy inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yonente bi sax eh, yaa ayyuha allazina amanu ji day tax mooy day def salaatu ala nabi di julli ci boppam ndax dana bëgg bokk ci ñi yàlla yàlla di ko def malaaka yi di ko def mu ne sant naa ko ñu baax ñëpp te salaatu ala nabi boobu muhammadu ñeent yoon la ñëw ci alxuraan benn bu ne di 92 92 4 fois yi boo ko boolee mooy sallallahu ala muhammadin nga ne kon da koo julli da ko ci def ba noppi kodewaat ko ci ni mu ko kodeelee wa in la si na kafaru wala yuslihuunaka bi absaarihim lammaa sami'uu zikra wa foofu nag da ko ne musal na ko ba noppi ñi doon wax naan dof la mu ne leen doonu lub dof ino ilaa sikru lil xaalamiina day wax ak borom bi wama saay bu ko bi la mañ noonu it waxaat na ko fi nga xam ne miimal na ko ndof gaay yoon te suñ mag bi ba mu daan wut yàlla di wut uh, yonent bi di réer doon wax naan daa dox bi mu demee ba mujj ci xam nañ ne foo mu Seex Ibra ba muy Sëñ Tuubaa dañ doon daa dox dama leen ku yaa la daale ca ñuy wut yàlla ba ci Seex Ibra mi ci mu a génn ko ciy wut ku ne dañ naan daa dof waaye uh, fa nga sag mujj mooy balay bala sa mel mbokk defete nga yëg ko Cheikh Ibra nag ci noonu la ko doon dox rek ni ko gaa yu baax yi daan defee la ko doon xam nga béru ci doxinu bopp mu bokkut ak ni ñu santaane doxin yi ko yu yàlla santaane mbégum yàlla lañ ciy sàkku ndax ku bégal yonent bi bégal nga yàlla mënu ci mënu ci rasul faqat ataala fa in tuuti yoo tax tuddoo loolu suñu borom de ku topp yonent bi topp nga ma te nee na ku ko ci topp dina nga jub loolu yi nag foofu wow yoon nag la sëñ Tuubaa jaar jaarloo ci képp ku ko yaakaar ci la Cheikh jaar loolu la ko doon dund tax si moom bi sunna te yàqu dunaa jànd bii daal di nilati dundal ko ni ñuy defe ko ni ñuy defee sunna bañ koo fooyee bañ bañ cee defi toppale nee na yàqu duna lil minit day yokk ay xéewal may may la yiw noonu ñi ko doon defee nag la ko doon defee taxawaay buñ ci am bu weesu biñ ko war tam fii ne mi ngi mel ne nga dem naan ilimaan ci jàkka ji nooy jullee di xam nga julli amul salloo kama kama raaytuma usalli yonent bi julli yàlla da ko ne aqimu salaata waatu sakara jooju ba mu ko ko waxee xam nga da ko wax waaye ba mu ko daataa def jibril la ñëw jàngal ko julli tisbaar la jëkk a julli te daa ñëw jiite ko tisbaar mu gis ko mu jiite waat ko takkusaan mu gis ko mu jiite ko timis mu gis ko mu jiite ko gee mu gis ko te fajar su mu jiite si waat ko mu gis ko léegi mu moxtaar mi ca daruuri bi mu delluwaat bàyyi ba julli tarde su fajar gi mu del ko julli ko niñ koy defee mu gis ko def ko tisbaar def ko takkusaan def ko timis def ko gee nga xam ne da nga gis muxtaar mi gis daruri bi bi nga xam ne mooy mooy biñ tànn da da nga koy gis inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutan nga xam ne dañ ko heure dañ ko bind ba noppi heurele ko wutal koy heure la woon nag heure heure bi ak woon la woon na tardement bi loolee nag ba mu ko Jibril la ko ko ba noppi yonante bi def ko nit ñi gis mu ne nag sàlloo kamaa ra'aytumuunii usallii jullee leen nii ngeen gis ma di ko jullee Cheikh Ibrahima ba muy topp sëñ Tuubaa noonu la nee ba mu ñëwee ba jub ko Jibril yi jóote fa kanamam raam mu raam mu sujjootal sëñ Bamba mu sujjootal ko jóge fa nag teg yoonu tëral bi nga xam ne sàlloo kama raytuma wa salli rek mooy noonu noonu nga ci laaj ñu ci Cheikh Ibrahima daan taxawee daal mooy jàkka joo dem daal fekk Allahu akbar nga cee dégg di cee dégg ko mu jublu penku dool mu jërut laaj nu ilimaan ji taxawe soññe bi ne moo ku bëgg lu baax ko ne daa daa te gannaaw ku ciy jéblu ku ne yaa indi sa bopp ñu bari na ñu koog ba muy jéblu sëñ bi da ko ne noo tudd moo ko yow wax ko nam sant ab gàtt nag bu wutalee boppam ab sër di war naa ma a fexe ba bañ a ruur la taxan di wut si sëñ bi daal di fekk yaa ngi koy jàpp sëñ bi moom la woon ci moom a nga ci moom fii nag jimboog timmaseeg yooyu la rajo yi jaay waaye dugub bi suuna ak ceeb ku ci ndax sab jumbox la koy sant Yeah, yeah.